Mustafa sin bi di Allah yow yàlla maa ngi lay ñaan ci bi di jaasi la moom rasulullahi sallallahu alayhi wa bi xalilika Ibrahima yàlla maa ci sa xarit ba Ibrahima yonent yàlla Ibrahima yàlla yàlla wa bi kalimika Musa zalin xadirin Muusaa ak Saalix ak yonent yàlla Xodar wa bi Suaybin wa Ismaayila yàlla ak Suayb ak Ismaayila maa ngi ñaan ci seen daraja man Xaadimu Rasuul wa bi Sulaymaana nooyin Yuunus al Yasai Sulaymaan nu ak Ilyaas maa ngi ñaan ci seen daraja man Xaadimu Rasuul wa Zakariya ayaa Huuda yàlla ak darajay Zakariya ak darajay Yahya ak darajay yonent yàlla Huuda yàlla waa Ilyaasin waa Damada barke ba Haaruna ak Ilyaas ak gaaw de maa ngi ñaan ci barke man xaadimu rasul huda wasil kifli isa luuta yàlla ak daraja isa ak nuut ak zul kifli maa ngi ñaan ci seen daraja man xaadimu rasul wa yusufin wa bi isaaqin wa xayri ak daraja yusuf ak isxaq ak kudul ñoom ci min anbiya in lakka yàlla ak mursalin di téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni maa ngi ñaan ci seen daraja man xaadimu rasul rasul wa bil malaayikati tulan summa safwatim def leen nu màggal bàyyi Serigne Saliou nee na ci barkeb malaaka yi ak selluk malaaka yi jibril summa bi mikaayil yàlla barkeb jibril ak barkeb mikaayil maa ngi ñaan ci seen daraja man xaadimu rasul wasaay bi nafri israfil xaabidi ar ki rocc ruu yi mooy asrafil maa ngi ñaan ci daraja man xaadimu rasul wayil xalaayiq asraila yàlla Israël mi nga xam نصاب يوهو يلا والدفت بمانجن ان كدر جمب الخارم رسول وبصابة ثم الأولياء ايمان سبرك بصابة اكبرك بولي مانجن ان كسن تل جمب الخارم رسول والعملين من الأخبار يلا اكبكو يلي دي خبر مي سكر مانجن ان كسن تل جمب الخارم رسول وبصديق وبالفاروق ثم بزي بارك بابك رسلي اكبرك امر من الخطا نورين suma di sibtay ni yàlla. barkeb Ousmane ak barkeb Aliou maa ngi ñaan ci seen daraja man xaadima rasul. bi maaliki rizqil masaaya safiya bi. barke male ak shafi ak Abu Hanifa ma ngi ñaan seen daraja man Xaadimu rasul anifatin ahmad al mahmudi allah ahmad ibn Hanbal ma ngi ñaan seen daraja man Xaadimu rasul bilawi wal khalam al mahfuz summa biar ci barke lawhu ak xalam ak aras ju tedd ma ngi ñaan seen daraja man Xaadimu Rasuul kal azim wa bil kursi allah ci tedd ngay aras ak tedd ngay kursi lay ñaan man Xaadimu rasul wa bil quran tawreeti summa bima barkeb alxuraan ak barkeb tawreet lay ñaan man xaadimu rasul daawuda jaa bihi wa ruuxu yàlla maa ngi ñaan ci barkeb sabuur yàlla nangu sunu ñaan man xaadimu rasul balix salaati wa taslimi alayhi lahu yàlla nga yeggale sama nuyoo ak sama sëlmal ci rasulé wala ali wa sahbi wala azwaaji yàlla ak ñam ak sahabaam maa ngi ñaan man xaadimu rasul waas علينا ربي عافية أو يو يلا يلا نسخل جم جنون نخلوي أم جم جم كوجن وهب لنا قصد في دارين يلا وهب لنا يلا نرمي القصد اللي بلون جبل يلا نكمي يو يلا وافتح لنا كل باب كنت فاتحه وافتح لنا yàlla nga nu ubbil kulla baabin bépp buntu kun tafaat yow yaay aji tijjee yow sunu borom lisaali na min alxayraati yàlla ci barkab gaa yi sell yi ak gaa yi baax yi tijjul ñu bunti ngi neeli yow yàlla wasur bina nahja rusdil wakfina salalan yàlla nga nu soob ci yoonu ngëneel ak yoonu ñëpp dafegal nu ay pakk pakk yow yàlla watrut lana jinna wa seytaana yàlla yàlla nga nu na ya yallahu yow ya yàlla wa kamilan kullama nanu wa nafsuduhu yàlla ya nga mottali lépp lu nu bëgg te jublu ko yow yàlla waab lana kullama naxtaaru yàlla lépp lu nu bëgg yéena ko baamu nag sunum xel yàlla nga nu ko may yow yàlla war lana kulla sisabin wa ziyaranin lépp lu jafe baa nu koy wut muy gën da jafe sunu borom ñodd na loolu mu ñëw wa yaasiran kulla si tasiri yàlla lu jafe yàlla nga ko jàppandal yow sunu borom ñaan na la ko man khadim rasul tawil lana umrana sahih lana badanan yow yalla may nu fannu gudd te welal sunu yaram ñaan na la ko man baye serigne saliw wa lana rusda wa tawfiqa yàlla wa lana may nu arruz ak njub wa tawfiq ak jàmm yàlla yow yalla wa damiran kullahdayn tudiru bina yàlla nga alak bi jàpp noonu bu jóg ngir du lor ñun xaadimu rasul xablal wusuli lana yàllaahu yàllaahu noonu bu jóg ak pexem balaa yëkki sa borom tubaa nee na yàlla ko ndërmeel yow suñu borom wa kullana aziman min kulli mahlakatin yàlla nga nu aar min kulli ci lépp luy alage wa najjina min balaaya dëhra yàllaahu musal ñu ci balaa yi xew ci jamono yow suñu borom maa la ko ñaan man xaadimu وافة معنم بلا نهاية بن بن ندخ طالبي يخم لما هو آفة وافة موي أو نقر متين مت مقوسة أغلو أمون نكوكو معنم نقر خل زلزالتين رنج رنج سوف شدة أكترتر جمونو والفقر يلا أم نكلول إهانة أك ينغو ينغو يخل خلتين باني نك أم خل مازيلتين نانا باني نبنو يو يلا خلبين باني لك يو يلا yalla wa faqatin banu ñak ñak bu yime hatasin mar yalla nga nuru musal yow yalla wal ju'i yalla ab xif yalla nga ci musal yow yalla wa fitnatin yow yalla musul ci fitna wal waba ak mbass wal haqimarqin ak lak wala ñu de ci geej wal bakhima sarqin ak lak bañu sax suñu alal wal kadi yalla lu deugar ñu dëkkoon mu gëna deugar musul yow yalla harrin Harlin moy aw tangor wa bardin sedd buy ray wa naabin nee mab, mabb kurbatin niqamin nee na naqaru adduna bu mu dal dalalatin harajin yalla bu bunu sanku sànku walhamni yàlla njàqaru nekk ci am xel ta manu faju su borom tabaari yalla ko yalla faj wa matin waxata ne leen amin borom tabaari ñaan bàyyi serigne salim def leen magal serigne salim wa waa matin waxata ah soppey sëriñu maam seera faal xaadim ne waxaamatin waxata njaxare jab jamono musul ñu ci yow yàlla ya dalatin zalalin neena ak sànku banu réer ba sun alal dem wal masxi neena yàlla mab su si jam yàlla yu surux wal khasfi neena ba sun borom kat mere rew mi tukul aduna sumal khasfi yàlla yàlla soti musiba mu dal ci rew mi borom tabaana yàlla ci yàlla musul wa xullatin maajunonin hilatin maradin manke manke xel ba tawat ba tawati xol ju te fa ju borom tabaana yàlla ko yàlla safara sumal jusaa jusamayni wa nuqsaani yàlla. jusamayni mooy mbori ak gaana yàlla yàlla bu mu dal. wa min xadiyati dunya nusuma axiratin. bon bonu adduna ak bon bonu alaxira yéen ci yàlla musal. wa min fuddu yi ma yàlla yàlla. bàyyi Serigne Saliou nee na gàcceeg adduna ak gàcceeg alaxira yàlla bu mu dal. yaa man ala kulli sayin xaadirun wala. yow yàlla kat yaa daw taw ca kaw aras yow rek yaa na ca kaw yow sunu borom. borom yaa not jamono yaa moom jam yàlla arsil azim istawa bil xëhri yàlla arsil azim yaa dem ca karas ba yow yàlla inni saaltuka xalban xaasian mutawa maa ngi lay ñaan xalban xol xaasi an bu ragal yàlla mutawa di an buy toroxlu ngir yàlla di wa ilman kasiran na xam kasiran nafi xam-xam bu bari ngariñ la la ñaan man khadim rasul wa tawbatan xubilat tub gu ñu mahmik natin rufihat ak daraja ju saw jetin salu bidini yalla bidini yalla ak soxna su baax ta am diine ñaan na la ko yow yalla wa kun muqisan min sawa yow yalla musal ci ay ku añaan masari faamin wasari lay ni yàlla ayu bët ak ayu làmmiñ musal ñu ci yàlla wasari sihrin ak kuy njabar wasari xalqin siimo ak ayu mindeef bu dee ay nit lañu max ji niihim wasawa jinne yi ak zawaati summi mooy jëmm ju am tooke ci summi yàlla jëmm ju am tooke yàlla nu yàlla musal ci tookeem inni jaaltuka fi daarayni yaasiqati def naa la yow yàlla ci àddina ak ci àlaaxira yaay sama wéeruwaay nanaasinan fakun maljaaya yàlla def naa la ngay sama tata yàlla nga ma sañe yow yàlla falaa takilni ilaa nafsi fa ahlika kun bul ma bàyyeeg sama bopp fa ahlika kun danaa nekk mujibani ay suma aduka yàlla. fépp fu ma la woo wuyu ma man Xaadimu Rasuul ñaan naa la yow yàlla. wajal lisaani. defal sa bi. ak sama xol. zaakiray. ñu di la tudd. kamaan. ma maatimaal. ba keroog may faatu mahal imaani ñu ànd ak ngëm. sama xol ak sama lam may faatu nañ la tuddu ta ànd ngeum yow yalla sabid yaqini ya fi qalbi bila wajalin yalla nga saxal ngeum ci sama xol yalla buma dengi dengi ata uy bal yaqlaq yàlla bu may faatu de dajeeg yalla yalla nek gel ci day ñan nako man kharim rasul Walidal jalil mawta wa mafratan dewal ak raxulaay ci man xaadim sul ak bépp julit bu yàlla sàkk min kulli sarrin wa karbin dàq yàlla xat-xatu jamono ak xat-xatu bàmmel borom Tuubaa nee na yàlla buñ ko gis wax fas di yàlla gis ma samsuru faaraxani bu jëmm ja demee bañ suul jëmm ja ci biir suuf rooga dem muy sama jëm man xaadimu rasul xamri laa tubliyan hudara yàlla yàlla boo ma mbugal ci biir bàmmel ak ku ma yaakaar man xaadimu rasul wa kun nasir yaani awa yow yàlla dimbali ma si dafanu bu ñu suulee sama bu ma wéetee foofa waxidan sama yàlla lu ma wéet wéet ci bàmmeel wéet li ma yow yàlla laa tat mu maanama hi bul ma bàyyeeg munkar ak nakir ba li may laaj ci biir bàmmeel maa xat yu raawiwu ni li may tiital ci bàmmeel bu ma ko gis man xaadima rasul malik fi al kullama fegal ma yow yàlla lépp lu ma ragal ak saaxu yàlla lépp ma ragal ci biir bàmmeel ba nu paanani yàlla bu ma ko gis wa najjini وجميع xettili ma xettili mboolem julit ba yalla sak al muslimi, namahan julit ba yalla sak borom taa na dugal na la ci sama ñaan wa najiwaat idati musallal sama waajur wu jigéen amina yalla borom taa na soxna jaara yalla ko yalla xetli ci bammel waghfir lana ha jegal nu te jegal ko mom soxna sa wastur mahay bana da nga sutural nu sunuy ayib yow yàlla wal bina wa biya yàlla nga ñeewantu ci ñun ñeewantu ci soxna jaara filaw li yàlla fil xew li ca njàqareel ëllëg yemal xiyaam ana tajawaz way jéggal nu jéggal soxna jaara yow yàlla yanarhaman fama amunu kenn ku la ma yow yàlla ñaan naa la lana siwaaka wa antal barru yàlla lana siwaaka amunu ku la may wa antal barru yaa aji baax yàlla yow yàlla fi barzaxin ma qabrin ci barsàq ak ci bàmmeel nekkal di ko wéccili yow yàlla laha wazaran xeccilil soxna jaare ci mbugulum bàmmeel ñaan naa la ko man xaadimu rasul wa min kurubin wa xawfin najji yàlla jàqare ak xadaxadu xol musal ci soxna jaara laa taxtabir yàlla boo ko nattoo haa bi ma ghadil yalla bokkuna to ludul xana lo dogal yow yalla wala tu khayib raja fika yalla yalla bo tass yakari soxna jaar yow sun borom wasfina ma min maika usariman yalla ngoro nandal ci ndoxum kawsara nandal ci soxna jaar ak bepp julit bo sak irtafu min jamil khalq yalla julit bo sak mu wara nand ci ndoxum kawsara yalla ngoko ci nandal ak soxna jaar man ka na yufsidu za ci barki brusilay mi jindiye xayyin wa yuxliku za mooy gind ku bon di jafar ku alaku di alak ku wedd yàlla kufrin waaye ansaru man kufrin ku wedd yàlla ñu ngi lay alage ci dara ji rasuule yi yaxsaaka yàlla ku ragal yàlla nag yàlla baaxal la ci dara ji rasuule yi muhammadin mahdil axyaari xaayidina sayyidina muhammad mooy jàpp kay guur yàlla yi muhammadin maskayil muhammad mooy kay góor yàlla yi axyaari xaayidina moo nuy wa madinu tàbbal àjjana moom rasuula yi li jannatil xuldi yawma lasri yàlla bu dem jannatul xuldi ñu ngay tàbbee ci daraji rasuula yi alayhi salli wa sallim daayiman abadan awa yow yàlla jullit te sëlmal ci rasuula yi wa man xafahu li yawmi diini yàlla ak képp kuy xeñtu mboorum jàllal bi um